وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا مبوك يني باي خل فون مانا نيك تي ادونا بي مو خام ني نيك تي ريومي ولا ني نيك بيتي ريو تاي باي خل سين سين بام سولا بي موي لا غران سيكري اولف نيغي لين دي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ginnaaw bi ñu santate yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa ñoo ngi jaajëfal mboole mbokk yi ne bàyyi xel ak fu a ne mbokk yi tey dañu fas yéene dikk ak yéen ci benn secret boo xam ne secret noob la muy secret noob bu am solo di secret noob boo xam ne bu mata xam la waaye bala ñuy gën a sori ci secret bi rek dañ lay wax yow mi gan ci pass bi bu fekkee ne abonné ko ci seen bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné te partage vidéo bi mu gën a yaatu ndax mboolem vidéo yi ne dugal ci seen bi yëpp ay vidéo njariñ la te njariñ moom nu mu gën a yaatu rek ci la gënee wax yow mi nga xam ne da nga bëgg def lu seet wala nga bëgg a def lu listixaar dañuy def seet à distance dañuy def tamit listixaar à distance mo xam nga nek ci réew mi wala nga nek bitim rew te bëgg ku la defal ben ci ñaar yi man nga ñu contacté ci numéro yi muy 77 684 28 28 bu dee da ngaa nekk Gambie ak li ko wër mën nga ñu contacter ci ci 238 1629. mbokk yi nga xam ne dañuy garab yi yi muy garab yi mus ñu leen di wax ne garab yi disponible na mo xam nga nek ci réew mi wala nga nek bitim réew te bëgg ko man nga ñu contacter ci numéro yi incha allah ñu fatali leen lu neew rek ci njariñul garab gi garab gi ñi wax garabu musham da fay yok man yu ndax ñepp xam nañ ne doomu adama man da fay wañiku garab gi da yokk man ni bu baax garab gi ñi wax musham garab la goo xam ne dafay dundal walax njaan ñëpp xam nañ ne wallax njaan doomu aadama bu feebulee pour nit am doom lu jafe lay doon garab gi day dundal walax njaan garab gi dafay yokk kattan bu baax a baax a baax ñëpp xam na ne kàttanuk doomu aadama dafay wàññiku garab gi day yokk kàttan bu baax ñett yi ñu wax lu néew la rek ci njëriñ gi nga xam ne garab gi làmboo na ko képp kuy ko wo man nga ñu contacter ci numéro bi muy 77 684 28 28 mbokk yi secret bi iya ne indil tay da ngay bind simu bi hablillahi jami'an secret bi ne indil tay da ngay bind simu bi hablillahi jami'an nga bind ko ngaw bi mi mi def ci sen tour fexe ba jël téré bi yëkkati foo xam ne fu diis lay doon nga saf ko fa waaye nag boo ci paree da ngay xadat sa tur ak turu ka nga xam ne moom nga bëgg nopp ak turu waajuram wu jigéen nga fexe ba di ko werdu baddoo waddoodu nga koy werdu lim bam la jox boo ko xadatee seen ñetti tur yi lim ba nga xam ne moom la la jox nga koy werdu baddoo waddoodu insha allah rabbi loolu boo koy def diir bu gàtt di nga gis résultat bi ci lu gaaw gaaw gaaw secret bu gatt la waaye secret bu wér a wér la ñuy dogoon ngànt te di leen wax ne nopp képp koo xam ne danga koy faral di def ci topp sa bakkan bàyyi ko ndax bari na ay conséquences yoo xam ne mi ngi ci bokk na ci li muy waral bari na nit kuy jàmbat bopp buy metti boo xam ne da koy yóbbu hôpital ak ci sëriñ ak fu ne te du wér fekk ne yàgg a jëfandikoo ay nopp mooy li koy waral bokk na ci li muy waral dafay tëj nit ba doo mën am dara man nga dem ba jàpp ne sax dañ la liggéey fekk ne kenn wi la jëfandikoo nopp lu bari mooy li ko waral la ca gën a dangereux nag mooy mën na gàtt fan nopp képp koo xam ne koy jëfandikoo day fekk nga am soxna te ngeen faral di am jafe-jafe lu bari loolu nga jëfandikoo ko lu baax la wala nga am koy bëgganteel te bañ mu génn ci say loxo nga def ko yu yi ku koy def bàyyi ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf